bombardier ñu ne daal instellement combat le premier maire bi Franc ak bombardier ñu ne Franc mu ngi lancé ay missile euh, ki nga xam ne mooy bombardier waaw mu ngi lancé ay missile ki nga xamante ne moo bombardier wala di lancé ay pic rek ak bu mu si mën a doon rek yaakaar nañ mu ngi koy lancé koo xamante tey Père Max xam na ko mm-hmm. a baax a baax di bombardier waaw peut ne euh, mm-hmm. tey si ñi ko ko ñi ko gunge accompagné ko tey ba mu si nekk fii tey mm-hmm. kon am na lu mu a xam ci bombardier yaakaar naa ne Franc xëy na sama gis-gis rek c'est pour juste rek pour jéem a laal intégrité pour laal orgueil orgueil mm-hmm. pour jéem ko déstabiliser. déstabiliser xam nga rek communication mbër la. communication mm-hmm. sport la. Mm-hmm. waaye am nañ yaakaar ne daal combat bu war a mun a neex lay doon incha allah. ah Max Franc Bombardier Franc mu ngi tàngal mu ngi lancé ay missiles yu métti ki nga xam ne mooy Bombardier parce que mu ngi France di entraîner entraînement yu métti combat bi le premier mai la. waaw xam nga euh, loolu c'est normal parce que problème mooy lamb du bëre rek ñibbi. Mm-hmm. boo amee bés da ko war a jaay mu am charme tàng parce que dañ naan non yéen seen combat yeneen combat yi làq na ko mm-hmm. foofu la toll foog nga défier sa adversaire mm-hmm. xamal ko ne bés yi nekk suñu kanam suñ bés bi yëeku gën a doon bés dëgg la foofu la toll moom foofu la toll di wan nit ñi ne dama jël bombardier pour daan ko bu ko mm. defee bombardier tontu ko bu ko defee ñu jaay d'ailleurs loolu moo tax sax yenn sponsors yi làmb di leen intéressé dëgg la mais boo jëlee combat rek toog jaayoo ko parce que da jaay lamb ja da nga ñëw bëre dem. Mhm. mais dafa toll ci phase promotionnelle bi. waaw te combat bi ñëw na aujourd'hui tey la quinze. le premier ñëw na ba noppi. waaw le seize jours si des. bu ngeen jël avance rek toog. Ah, ah, ah. mais loolu du ngeen dimbale quinze jours moo des si combat bi. dëggee. da nga war a jàpp ci promotion bi. dëgg la war nañ mën a woo partenaires yi nga xam ne ñooy gunge promoteur bi. Mhm. wax pour jaay seen événement. am na promoteur dañuy sawar ci di la bëri loolu. dëgg la kon mi ngi ci duwaam. lu jaadu la. Mhm. noo jàngatee komba boobu. non combat la boo xamante ne nii combat la bu neex. waaw Bombardier mbër la moo xamante ni amateur dañ koo bëgg. Mhm. ndax du tricher. waaw day xeex day bëre da koy jox ak xam. dañ naan kan moo ko war a. arrêté ndax dañ naan ñi moo man gaañ te bombardier di koo xamante ne nii. Mhm. wax naa la ko rek. dëgg la moom sa kaw la jëm. Mhm. te dañoo bëgg jàmbaar. dëgg la bombardier jàmbaar. jàmbaar mhm. mais bombardier jàmbaar mais booy xool euh, combat yu mujj yëpp euh, Eumeu Sène daf ko ñàkk tafaatin Tine daf ko ñàkk rëg-rëg ak ni mu ñàkkee contre rëg-rëg mu war a daje xale boo xam ne musul daanu. waa xam nga bombardier fi mu toll ñoom ñoo war a reyante di ko daan. waaw mu mujj daan daanaka. da ngay doon le grand perdant. ndax amatul lu mu ci làmb. day yeggale carrière dëgg la métti ndax ndax ñoom bu leen daanee lay gën a métti ci ko ñoom ñu daan ko dëgg la ndax moom li war def yëpp def na ko mais mais dafa war a tamit sortir par la grande porte quand même waaw mais xam nga boobu décision boobu la moom bu ko leeru na mën a tuuti gaañi dara ni ma ko xamee ak jomam ak fitam kon tekki na mais lamb nag da ngay wut si mais lamb sport toujours day favoriser xale toujours day favoriser xale waaw ci discipline yëpp boo xoolee waaw maanaam avantage bi li ci ëpp xale bi lay fares mm, dëgg la waaw mais mag bi jël la pour daanu jël la pour daanu mais lan ngay xaar si Bombardier si combat bi ak li mu wone contre Reug Reug ba nit ñi di wax ñi combine la lii lan ngay xaar si moom concrètement contre Franc euh, Reug Reug euh, dafa moom Bombardier dafa dugg ci piège Reug mm-hmm. ndax dañ doon xalaat bala ñoo jàpp bala ñu bëree am mu jël kurpeñu Bombardier ndax Bombardier loxo bi daa diis mm-hmm. saa woo jëlee kurpeñu mën ngaa jaxasoo waaw day dafa dem rek boppati te Bombardier Reug Reug xamul poids lourd ndax ba mbappat mm. yi mu doon def dëgg la te esprit partenaire da koo am écrit caaro bu ci amul ñam soxla da koy witi ci séeréer si di mm. contact ak ñoom mm-hmm. su boobaa Bombardier mënul diis ci moom ci jàppante bi mm-hmm. Mm-hmm. moo tax ba bañ xeexul ba mu jël coup ba man la ma doon xalaat mooy mu jël ko bombat avant ñu jàppante mm-hmm. Mm-hmm. mais bi ñu yoroo daw mbapat mm-hmm. xalaat naa ne euh, rëg-rëg da koy daal Franc war a moytu si Bombardier rek Bombardier moom boo mënee bañ a jël kóor kurpeñam moo gën a loxo bi diis na loxo bi diis na soo jëlee kurpeñ mën na am effet mën na lu bëri te yaa ngi dugal foo xam ne bugguma ci ndax la ma seen doon wax nee na max bugguma muy def analyse ci sama combat ndax la ci day dugg ci sama préparation mais yow nag Iba lépp ngay laaj mais léegi léegi léegi Bombardier moom lan la war a moytu si Franc ah non franc ku ne xam ne ne day bëre si. day bëre day jël lamb ji bokk ak moom rek. Uh-huh. su jóomee mu exploité ko. Hmm. waaw. franc daan bombardier fan la koy yóbbu. non franc daan bombardier ñu bombardier bëreeg yëpp day mën a bëreeg ñoom. Hmm. day ubbi bunt. waaw boo déggee ñu may ma chance. ñi daan bombardier ak ñoom daan yëpp. Hmm. ñi bëreeg bombardier yëpp da nga da ngay mën a bëreeg ñoom. tax ngay bëgg di bëreeg mag ñi la fare ko. mais xam nga ne bombardier ren lay jeexal carrière am 48 ans net. waa ren ren la war a. fin fin août waaw ren la war a jeexal. waaw. Euh, pour dem witi leneen. waaw. na mais. Bombardier mbër la moo xamante ne nii li mu war a def yëpp def na ko amatul lu muy perte ci làmb. Mhm. am na sax ñu naan dañ ne boo demee ba dem quarante huit ans man ngay présenter certificat médical chaque ba mhm. mais daal loolu est ce que wér waaw xam naa daal. quarante huit ans bu ñu yokkalaatul beneen prolongation. Mhm. ci ren la war a jeex. ren la war a jeex. Mhm. d'ailleurs looloo tax sax combat mag Zarko. Mhm. waa Gaston production yi stand by. waaw ne ñaari avance la waroon a am. ndax moom Zarko defaroon nañ contrat ba ñu war ko jël. mais su ma juumul waa Gaston production dañoo déglu rumeur boobu. que dañ bi jàllee. est ko bàyyi mu bëriwaat. dëgg ñu ne nañ bàyyi ba li jàll ban xam fan lay mujj. waaw ñu doog koo wax mais. mais waa Gaston production. fis pare woon nañ pour fisale Bombardier ak Zarko mhm. mais am na loo xam ne musoo ko wax 2007 mhm. la ba léegi mhm. on est en 2024 Tyson Bombardier le 7 janvier 2007 nga toog si banc bi jël bi am nga jóg yëkkati sa lox sol blouson bu verte ànd ak Bombardier la moo xewoon bés boobu waaye li xew mu doon rêve ba ma doon wax rek ndeysaan ne ko woon yaa fi war a yàlla def combat bi taxaw moo may la ci benn anecdote bu doy waar. ndeysaan ñëwal. parce que bul fàtte ne leemu. Mm-hmm. magu bombardier la bombardier. grand leemu waaw. ci moom la toog. Mm-hmm. dañu toog seen saal kër Pape Dia. Mm-hmm. ma ne leen Tyson bombardier ko man leemu ne da ngeen wax rek fii nga toog ñu lay jaay ndax booba ñoom dañuy supporter Tyson. ñuy waxtaan ñu dem ba combat bi taxaw. parce que bul fàtte ne Yékini boo jiite Tyson. waaw moo jiitu Bombardier. Mm-hmm. mais Bombardier Yékini daan na ko mais boo gisee mu jiitu ko ci doon roi des arènes Tapha Gueye mi mu daan la jël sàlloo. waaw donc su boobaa day mën a am Tyson moo tax mu jiitu ko ci Tyson doon roi des arènes moom Bombardier. lamb mm. escalier la. Mm, waaw 2002 ba. waaw 25 décembre 2002. léegi nag bi mu jëlee Tyson ñu toogaat ci salle bi Kër Pape Dia mën leemu. combat ba ma la waxoon taxaw na de mu ne ah booba de wax la woon rek mais Bombardier ku mënta daan amul mhm. mais booba ma ne Bombardier combat bi de taxaw na mu ne ma seen jaan wàcc na man maa ci des mhm. teete ngeen ma ci cent mille francs ba tey may bëre ñu fay ma vingt deux millions ma war a bëre ji combat royal Mm-hmm. seen jaan wàcc na Youssou Ndour woy ca woy wu rëy wa woy bi ñu koy déglu kër Bombardier entraînement lañ jóge ñu teg woy bi ndeysaan dafa mel ni bésu làmb jël fàtte nga woy bool ma fàttali la ko na fàttewu ma ko sax nan la waxoon sax na xam nga xam nga xam nga daf ne daf ne daf ne daf ne tey seen ne noonu bëri ndaw yi nañ ma moytu waaw màgg na màgg na tombeeg ko jógee entraînement ànd keroog dafa mel ni bésu làmb ja keroog la mu yëngu yaram bi yëngu foofu yëngu. ndeysaan moom jom ja daa bëri dafa ñeme. ñu xam ne am nañ bés. léegi day daal di dugg ci histoire. Mm-hmm. Hmm. booba sax ci préparation bi may sadoog bombardier dóor na foofu bañ bu dal ba sama bët bi dafa dereteloo. moom bomb. waaw xale yi damaa sonn ci ñoom. ci ñoom jël nga coup bombardier. ba waaw non sama bët bi dafa dereteloo ma ramaat ay deux semaines. ndax combat bi rek. bëgguma di dugg duñ ko wax. waaw mais lu tax. mais non non il faut que ñu dem 7 janvier 2007 boobu. allez ah, allez lu uh-huh. tax aussi duñ ko wax aussi parce que war ñu ko leeral. parce que tey da ngeen da ngeen sacrifier seen lépp. Ah, sacrifier seen temps. sacrifier seen alal dañoo xëy rek doon champion. waaw te dafa am ñu leen tënk ñu leen ah, ñu leen. Dakar. Uh-huh. bëri Dakar. Uh-huh. dem di ko courser. fii dem ba Mbour. dem di entraîner. day dem ba moo tax boo seetee bi mu daanee tey mhm. en général boo daanee mbër dangay daw ñëw léeg-léeg nga yenu mbër mi doxoo ak moom mais boo man ja xam nga àttanuma ko mhm. boo seetloo bu ma daanee moom bu bëggee tëb dama ko wax tëb de man maay tëb mu gàddu ma waaw mu gàddu la ndeysaan ñoo uh-huh. uh-huh. mais lañ ko doon préparé naa ko Tyson day wàññi xam nga Tyson buy lay atoo day yéex day def nii mm. benn ñaar léegi bombardier sonil dafa gaaw leyaatoo dox ci kawam mm-hmm. mu jaxasoo waaw waaw xam nga day gaaw leyaatoom attaqué ko léegi bu contrôlé kii ni mu gaawee leyaatoo yi àndul ndax kii day bennaatu di def nii di def nii kii def nii dox mm-hmm. sëkkatal ko mm-hmm. am na sax préparation mystique yi ñuy jaar ci ay shérif yu ñu def yooyu moom dama ci dugg ndax affaire mystique la loolu moom yaa fi daa xalaaj waaye du ma ci wax uh-huh. mais pour te dire que ne ci wàllu mystique sax dañ ci daan ànd di dox ngeem entraîné jot ma takk ngeem bu ñu ànd di contact maanaam hmm. dañoo daj ci lu muy jàmbaar di ku ñeme nag hmm. ak ku neex mu reyante ba doon roi des arènes hmm. dugal ko biir mbuur daan tey seen Yékini topp ci ba bi ko Yékini di jël tere woon naa ko Yékini 2004 bi ah tere woon naa ko Yékini tere woon booba ñu ngi doon dox revanche am ak Tafa Gueye ma ne ko te ngaa jëlaat Tapha Gueye te su ma jubul même ko ndem si yàlla si Mor Fadam ko xaaraatal booba moom ma gént ci diggam tey sa Yékini bëgguma woon combat bi ma ko yàgg na laa topp su ma xaar ba ci kanam mais li ma ci am mooy ci Matar Gueye laa jëm di ko yóbbul avance sama yaayee jàmme xoola fa laa déggee puusal micro bi sa côté gauche fa laa déggee combat baax mhm. Mhm. Mhm. ko su ma soñoon jël Yékini da xaar ba ci kanam wax ko yëma ca gént yëpp mais ci laa dem di yóbbul yaay jàmme avance non Matar Gueye comme am ak yaay jàmme yaay Espagne ñu ngi koy dem di ko yóbbul fa laa déggee revue de presse ñu ne combat Bombardier Yékini taxaw na oh, oh. waaw te boobu moment boobu bëgguma woon combat bi maa xaar ba ci kanam ndax Yékini dafa ko yàgg topp mhm. ndax Yékini dafa yàgg top Bombardier Tyson ci roi des arènes mhm. tey Bombardier jiitu ko ci léegi nag Yékini rêvam yëpp mooy doon roi des arènes ci la topp euh, Bombardier Bombardier moo ko yëma ci gént yëpp mbay Sarr xam naa mi ngi mi ngi seetaan mhm. Mbaye Sarr bi ànd ak Bombardier ci préparateur mi loo géntoon non yow yëma yëma ci gént bëri na comme la waaw dama ci gént ay combat ma gis Yékini di ci ñëw ma leeral ko na ko Yékini ni ma koy géntee su ma sañoon nga xaar doo ko jëlagum mhm. am na yenn détail sax bëgguma cee dugg xam na fi may waxee mhm. ah, ah. Euh, léegi mais mu jël ko xëy na booba it loolu la yàlla dogal. yàlla yàlla dogal waaw ñu bëri yëkki ni daan ko doon waa des arènes. Mhm. mais man image bi ñëw si man mooy 7 janvier 2007 Bombardier mhm. Tyson. Mhm. bu ñu àndee seen ñaari bopp yi. mais yow gis naa nga jóg rek. yëkkati sa loxo. waaw lu xew lu xewoon mais xam nga xam nga xam nga xam nga bu ñu seetloo jël. waaw.